on a notre programme c'est clair on a un candidat c'est kon ñun amuñ beneen jafe-jafe lu dul dem ci nit ñi wax ak nit ñi kon ci loolu lañ nekk période bi ñu toll juste mooy période du parrainage ñi ngi liggéey ci parrainage semaine passée def nañu benn travail extraordinaire à Thiès mhm. mooy tous nos délégué régionaux dañ leen invité à Thiès ñëw ñu toog ñu wax leen seen liggéey jël dispatché leen C'est un quota de parrainage defal leen formation ñu dem dem ci nit pour que nous réussissions ñu réussir ko té dañ ko réussir xam nga mm. parce que depuis un an sans crier gare nous ñu di dañu def recensement de nos militants sur le plan politique on s'est retrouvé avec 58 000 militants yu nga ko de manière interne le lolu résultat bobu mo parrainage donc ñun parrainage réussir nañ ko modalité rek la ñuy def fi mu tool nii. mais parrainage bi voilà beneen bi. waaw maa ngi ñëw ci parrainage beneen bi nga xam ni ñëpp ci yam. Mhm. mooy problème doublon yi rek ñun la ñu xaar problème doublon yi nag kooku ñëpp ci yam parce que ay tirage la mais bu dee matière bi ci boppam ñun pratiquement on l'a réglé parce que ñun dañoo def un an de recensement te recensement bi mook pratiquement benn la kon ñun parti organiser la ñu dañu xam bu heure bu nekk looy def wóor na mën am na parti politique xam fi xamaguñ sax ñu commencé mais ñun depuis moom muy parrainage. def nañ ko de manière euh, euh, ci recensement. Mhm. Mhm. d' accord léegi léegi euh, tudd nga Thiès muy nekkoon ci ay jamono sax la ñuy wax fiefu président Idrissa Seck mën nañu waxoon ni moo fa tegoon tànk mais jamono ji dafa mel ne président Idrissa Seck moom Thiès dañ koo nangu ci loxo. li nga xam ne daal gëm naa ko mooy bi président Idrissa Seck di laaj ba léegi. dem na élection présidentielle 2007 dem na fa 2012 dem na fa 2019. largement lay battre ay nim ko bokkal. yeneen yi nga xamni demander demandé na mairie masu ko demandé perte ko mas demandé de conseil départemental masu ko demandé perte élection yi mujj yooyu ngay wax amu ci benn boo xam ne moom impliqué woon na ci waaye nag parti yooyu moom impliqué na à travers ay coalition nest pas yooyu nag loolu tam La am ay coalition ci nekk am na de la mais ñun li ñu xam am Idriss Seck est dans le cœur de la majorité des Thiessois te bis nañu wan ko ko élection présidentielle yi di ñëw ko ko bu ci ay jamono la woon jamono xam nga élection baromètre en politique mooy li wax naa la ba deux mille dix neuf dernier baromètre buñ ko mën a euh, euh, natt moo moo gañoon foofu sans problème. léegi nag waaw léegi nag xam nga tey man nag duma euh, lu ñu wax luñ waaw mooy maire bi moom actuellement waaw dama ni waaw c'est bien kooku nag bu moom dañu xaar ba présidentielle bi ñëw rek moom mooy maire Thiès du dëgg mm-hmm. bi muy dem maire Thiès Idrissa nekkul woon demandé wul pour nekk maire mm. kooku nga xam loolu beneen bi nag ñu ngi dem élection présidentielle su fekkee ni présidente présenté na comme Idrissa ñu xool kan mooy gagné mm-hmm. mais yegguñu foofu mm-hmm. léegi nag ku mu neex na wax ki nekk mooy mais daal tey moom li wéer mooy mooy maire waaye nag maa ngi fàttali ba muy laaj maire Thiès Idrissa boobu laaju ko. te am nga yaakaar bu bu laajoon ci non waxuma la li ma yaakaar mooy waxuma la Thiès incha allah élection yi ñu jëm bu soobee yàlla Idrissa c'est le meilleur profil ci Sénégalais yi fi mu nekk nii. Mhm. du dëkk mhm. mooy ki ci ëpp expérience. kooku sondage yi ñu mujj def yëpp wane na ni moo nekk ci kanam kon ñun espoir am nañu waxuma la Thiès dañu am espoir gagner Sénégal te ci loolu la ñu travailler ci loolu la ñu nekk. amuñ ci benn sikki sàkka fi mu nekk nii moom lañ gëm te am ñaakar am nañ yaakaar ci ndimbal yàlla mi nga xam mooy joxe pouvoir mm-hmm. dana ko jox en 2020 am na expérience ci wàllum politique loolu kenn du ko naatable ci biir euh, réew mi yàgg na politique yàgg naa amal ay jongante jëm ci wàllum élection présidentielle ak euh, élection bu mu mënti doon waaye dafa mel ni Idrissa Seck maanaam dafa magal dafa jeexal ci wàllum politique yéen élection présidentielle bi moom mooy seen euh, sànni tàccu naam sànq wax nga ko yéen pare ngeen ci parrainage bi ak yenn ci ay jafe-jafe yu nga xamante ne peut-être yenn candidat yi ñu ngi koy am ci parrainage bi yow nee nga léegi amoo leen jafe-jafe jëm ci wàllum parrainage bi ndax teel ngeen a jóg mais yaakaaroo ni Euh, élection présidentielle yi yu atum 2024 mooy sànni tàccu président Idrissa Seck. boo xam nga bi ñu dem 2019 euh, avant yaa ngi ko fàttaliku. waxu mhm. bàkka màkka dañoo woon Idrissa dee na dëgg fekk nga ko. <laughs> Hmm? Hmm. mu jël deuxième normalement bu fekkoon yi fi aw na yoon. Hmm? yaakaar naa ne dafa doon doon deuxième tour. Mhm. mais bañ ay coow moo tax ñu tegoon wax jooju pour bañ Sénégal yëngatu. Mhm. kon comme waxoon nañ loolu ñu jëmaat élection ñu ni euh, dee na bon y' problème bu jaaree comme fu mu jaaroon bu soobee yàlla bu deux mille vingt cinq bii ñun gëm na ni mooy jëlaat mooy jël bi yoon euh, fee yëpp deuxième la doon jël. yu mu mujj a lay jëlee réew mi te Idrissa maanaam politiquement. moom hmm. doole bu mu amul. waaw kooku yow yaa ko wax mooy li ma la wax léegi rek xam nga yow say wax dafay nekk man tam say wax nekk nii wax naa la politique ñun dafa am fu ñu koy mesurer politique si nit ñi la du li ñuy wax ci média yeeg yooyu. te politique da koy xam te moom am na expérience politique soo se ko seetloo tintamarre yooyu gis ak bruit yu bari yëpp doo ko ci gis nee na buy taw du fobeere waxin bu rëy la nag kooku ci ku am xel ku koy déglu. bu doon am na expérience politique tey kon doon na président yàgg na. waaw président nag maa lay xamal ni ñun gëm nañ yàlla nee na nguur moo koy jox ku ko neex bu la ko naree def day indi circonstance mu nga dem Macky Sall président Macky Sall ku ko waxoon 2012. bi muy dem élection yi ndekk naam bi résultat yaakaar naa ni dina ci dute lu bëree bëri te terul moom la ko yàlla jox. Mm. mais ñun defe nañ defe naa liggéey nañu ci réew mi loo xam ne tey fi mu toll nii élection yi daal gëm naa ni incha allah bu awee yoon gisuma fi keneen kuñ ko mun a jox ku président Idriss. Mm. loolu nag nit ñi ñoo koy joxe sénégalais yi la. te mm. sénégalais yi li ma la mën a xamal euh, soxna Fatima. mooy yeewu nañu te xam nañu àdduna te xam nañu aussi le moment politique xam nañu situation bi ñu toll jàmm ji réew mi laaj. expérience bi réew mi laaj xarañ bi réew mi laaj ku mel ni Idrissa lañu koy jox incha allah. Mm-hmm. duñ ko jox keneen mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. Euh, mais tamit am na beneen euh, mbir bi nga xamante ne euh, docteur nemeeku nañu ko au sein de cette partie qui est le parti Rewmi dafa mel ni yéen daal seen parti bi Idrissa Seck moom daal moom kese moo fa nekk di buum di buum mi maanaam parti bi daal amul démocratie ndaxte gis nañu ko avec ci ay jamono avec Déthié Fall maanaam Idrissa daal moom daal mooy xool lu ko neex ci parti bi rek mu doxal ko. loolu tamit doy na waar amu leen votre mot waaw loolu mooy mooy moo tax xam nga ñi xamul moom mbir mu ne de wolof nee na la mu saf kaka macc ka xam. Mm. mbir mi ke nekk ci biir moo ko xam maa yàlla daf ma dimbali man balaa parti réew mi di ñëw depuis m laa nekk ci ci ci ci ci euh, mouvement su Idrissa Seck. Mm-hmm. mouvement M6 man maa ko doon diriger secrétaire national bi ñu créé ba léegi maa ngi ci. te xam naa ne démocratie mi ngi fi lépp lu Idrissa di def da koy def ànd ak mbooloo mi léegi nag li nga wax léegi ci wàllu loolu mooy wane nag démocratie bi am ci ñun ci biir suñu biir soit euh, nga dëppoo ni jàpp nga ni baax na nga nekk fa di euh, di di di liggéey boo jàppee ni yow am na leneen loo gis walla feneen foo mun dem bu boobaa nga dem ci ñi ma gis ñu génn ci parti bi yëpp de déggoo kenn ku wax lool du Déthié Fall du am na foo xam ne dégguwul ak parti bi ci wàllu doxalin bu ko defee moom moo génnal boppam moo bàyyil boppam te boobaa man ñu ni dañ ci sonn man bi mu génn noonu dem naa lu man ñetti yoon këram pour wan ko ni vraiment du ba la bonne direction mm. mais nous sommes des démocrates démocrate mooy wane ne ah nit ki bu fekkee ne loolu mooy option ñu bàyyi ko Abdourahmane Diouf bi muy génn parti bi comme ni nga ko waxee mm. moom tam moo dem ba si ak ne daal pour convenance personnelle moom jàpp nañ daal dafa am leneen lu muy def dafa xool sax dafay am yeneen option yu mu am waxu politique ba ginnaaw gi la ñëw ci politique. Mhm. te ñun dañoo gëm ne ñooñu ba léegi suñu famille lañu bokk. gis nga ñoo ñu génn dañu jàpp lu yàgg dañu déggoo parce que amul lu fondamental lu ñu lu ñu kii lu dul rek mu nekk ay convenance personnel mhm. jeex na mais du kenn génnul ne Idrissa moom a def li wala di yow déggagoo ko ñu mel ni yéen nag nekk ci biti nag yéen ay waxloo mais ñoom si seen bopp amul kenn ku ñëw ni dañ maa xatal wala li dafa am doxalin bu nga dem ba mbooloo mi moom ni nii lay def yow sa bopp bopp bopp nga ne leneen ngay def. parce que ñun ña fa nekkoon ci secrétariat national muy man ak samay moroom ñun option boobu dañoo gëmoon ni président Idrissa